di ñaan yàlla yal na yàlla may ñu euh, yeewu si jàmm yendu si jàmm na yàlla faj aajo yëpp yombal mbir yëpp euh, yal yàlla yërëm ñi faatu euh, te wéral ñi feebar faj aajo yëpp tabarakàlla dellu si waat nañ sunu téere bi tan gi al qawlul xasis bi charhil bi charhi lubaabil hadis ñu ngi war a tàmbale tey ci albaabu thamin wa ishron buntu ñaar fukkeel bi ak juróom ñett fii mane ay xamri day wax ci tere gi ñu tere naan sàngara nga xamante ne bi léegi mag ñeeg xale yeeg jigéen ñëpp dañuy naan sàngara am na bërëb yoo xam ne boo fa rombee xale jigéen rek ngay gis ñu téen ak butéel di naan rek di wax lu kenn xamul te loolu nag moom baaxut xale yu ndaw yi ñeneen ñi ay tàngal la ah tabarakallah sàngara baaxul de te sàngara ku ko naan dañ la war a dóor juróom fet juróom juróom-ñett fukki yar waaw samaaniina de juróom-ñett fukki yar quatre-vingt coups lañ a dóor billaay bu ñu ko doon dóor gaa yi danoon fekk bàyyi nañu sàngara yàgg na moo tax qaala nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne man sharibal xamra képp ku naan sàngara fi dunya fii ci aduna lam yashribha fil axira yow moom doo ko naan alaxira ndax sàngara am na alaxira ndax boo yàlla ne min taxti alan xaaru ñeenti déeg yi muy wax déegu ndox déegu sàngara déegu lem déegu soow mais yow moom benn déeg bi moom doo ca laal ndax naan nga ko fii ci aduna kon sàngara baaxul de waxaat sallallahu alayhi wa sallam nee na man shariba alxamra mumsiyan asbaha mushrikan nee na képp ku xëy naan sàngara bu guddee da ngay bokkaale yàlla man shariba alxamra mumsiyan ku ko naan guddi asbaha boo yeewoo musikan da ngay nekk bokkaale yàlla te yonent bi wax na ko ne am na beneen xaalis bu mu wax ne ku naan sàngara daa mel ne ku sum ku nit nu muy sumee mu boobu aj nee noonu la ajee diineem kon bokkaale na baaxul de nee loo ma shariba musbihan ku yeewu naan sàngara am saa musirikan bu guddee da nekk bokkaalekat hey allahu akbar te bokkaale moom ku ne xam na ne la ci yàlla waxoon yal na yàlla musal ci naan sàngara wa qaala sallallahu sallam nee na alxamru umul xabaa'is sàngara daal mooy ndeyu ñaawteef yëpp nit ku naan sàngara amul lu mu mënul def waaw mun na summeeku mun na wax lu kenn xamul noonu sàngara baaxul naan sàngara li ko gën a doy waar daal amul moo tax mu ne fa man sharibahaa lam tug ba salaatu arba'iina ku naan sàngara yàlla du la nangul sa julli ñeent fukki fan ah, te yàlla xam na ko am na ay sëriñ yoo xam ne ñu ngi fii naan sàngara la ñuy def naan naan déguisé la ñuy def boo ko gisee da nga yaakaar ne kii te fekk dañuy màndi bay tërëb billaay walaay du caaxaan ah, waaw loolu lu ñu xam la ndeysaan bu ay sëriñ di naan sàngara kay ah, ay jaaxil ñuy jàngul dara nuñ fu ñu jëm ñu koy dañuy naan bay tërëb moo tax dara baaxu ci nag. ki ko jàng ki ko jàngul ku xama ko ci xamul ci bokk yam baaxul de salal salam nee ah, nit te ku kii naan sàngara ñeent fukki fan duñ ko nangul julleem fa in maata wa hiya fii batnihi maata maytan jahila su nit kii bu naane sàngara dee sàngara bi mu ngi des ci biiram nee na day dee deewu ñi comme ñu réer ñu njëkk ña waaw akbar dafa garaaw de sàngara baaxul yàlla musal ah di sang néew bu naan sàngara sax musiba la waxaal salaa salaam nee na alxamru jimaaul ismi bàkkaar daal boo boo xool li ko li ko composé li ko boole li ko dajale mooy naan sàngara alxamru jimaaul ismi moom daal jaa sàngara moo boole bàkkaar yépp moo tax yonent bi tuddee ko umul xabaais waxaal salaa salaam nee na bi nee na charibul xamri malun nan ko sàngara dañ ko rëbb te rëbb bu yàlla tuutiwul de Mustafaa gi yàlla na ko wax ne rëbb yàlla tuutiwul boo gisee ko yàlla rëbb sax boo ko jegee sax yow mu nga si am problème wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent shaaribul xamri ka aabidil wasan nee naan ko sàngar daa mel na kuy jaamu xërëm wa shaaribul xamri ka aabidil laata wal uza naan kat sàngar daa mel ne ku doon jaamu xërëm bi ñu naan laata ak uza yi waa màkk yi doon jaamu bu njëkk ba xërëm yu bon yooyu wa qaala sallallahu alayhi man shaaribal xamri képp ku naan sàngara faqad kafara bi ma anzala taala yi weddi na lu yàlla wàcce woon si yonentam yi xoolal ma loolu rek te waman sàllama xam xamr képp ku nuyu kii noonu naan sàngara aw saafi wala mu nuyante moom loxo ak loxo ma romb ko rek nuyu ko wala nuyante moom loxo loxo ahbatallahu amalahu arbaina sanate yàlla yàq ay jëfam lu toll ñeen fukki at i waaw ma ne dafa fekkee yow amagoo bu dee ci ñeen fukki at rek nga am yow ñu nga nuyu naan kat sàngara te suñu dëkk bi nga xamante ni dañ naan jolog islamo chrétien yow su fekkee dangaa ngaa dëkk ak moom nag wala seen feeti ñëw nga naan sàng eh, ci yal na yàlla yërëm daal nee na boo nuyoo naan katu sàngara bu dee sa xarit la mu gën a ti garaaw boo nuyoo naan ko sàngara nuyu ko rek wala jox ko loxo yàlla ñeen fukki at yàlla yàq na say sa jëf yow waga sala sallam yonent bi ne man sharibal xamr laa yajtamiu wal imaanu fi qalbi imriin abadan nee na naan katu sàngara ak gëm yàlla yàlla du ko boole si benn xolu nit ba faw kii dafa gëm yàlla day naan sàngara amul fenn moom kay booy naan sàngara moom summi summi nga sa diine lislaam teg fee ngoog waxaa sala salaam yonent bi nee na man shariba alxamra xataa yuzila aqluhu yaatihi cheytaan fi duburihi allahu akbar moo tax muy calli calli bi nee na ku naan sàngara ba xelam dem cheytaane moo ñëw di koy di joteeg moom moom arbaina maratan ñeent fukki yoon maanaam quarante fois seytaane da koy jàpp rek di di di sëy moom ci gannaaw moo tax kay nekk naan kat yi di call call rek di di wax lu kenn xamul <laughs> nekk seytaane moo nekk di leen di leen di leen defal lu kenn xamul nee na kamaa yaati imraatu comme ni muy ñëwee ci jabaram noonu la koy se noonu ñëwee si moom ñeent fukki yoon moo tax kay naan sang sàngar yi kay bu ëmbul it musiba dal na leen seytaane dégg tabaarkalla wa nga sala salam yonent bi ne laanallaahu xamra wa sharibaha yàlla rëbb na sàngar ak ñi koy naan wa saaqiha ak ñi koy naan lu yëpp wa baayiha wa mubtadiha ñi koy jaay ñi koy jaay lu yëpp wa aasiruha wa mu'tasira ñi koy nal ak ñi koy nallu wa xaamiluha wa mahmulu mahmulata ilay ñi koy yenu ak ñi ko yenu juba indi ko si ñoom yëpp wa aakilu saman ak ñi lekk njëg bu yàpp yàlla dëpp na leen allahu akbar laanallaahu yàlla rëbb na leen ñoom ñëpp moo taxit naan katu sàngara yi kay sawaay indi lañu nit ñi musiba rek te billaay wallaay góor yeeg jigéen ñëpp ay naan sàngar ñu bari léegi dañuy naan sàngar am na gaa yoo nga xam ne eh ah ma ma ma def li alañ Moussa di waxoon rek nee na li weex lii yem naa ci fii man tamit ah, mbir yi daal xaaral ma yem ci foofu rek la ma ciy wax sax la nga ci xam moo ko ëpp sangara bi naan bi ëpp na yal na yàlla defal jàmm yal na si yàlla musal musal suñu njaboot te ci kanam la jëm nag. yal nañu yàlla defal jàmm defal nu ko may ñu yendoog jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu suba jàmm ñëw ci buntu ñaar fukkeel bi ak juróom-ñeent bi fadilatu ramli asalaamaaleykum